Babacar Amar ñu gën ko xam ci xudaar waaye jógee ba dakaar ñëw di wane suñu jàppale di euh, euh, FRAPP euh, membre FRAPP donc ñëw aussi tey pour wane suñu jàppale ci suñu frères yi nga xamante ni bon arrêté nañ leen ci loo xam ne dañ leen tooñ donc voilà loolu moo waraloon suñu teewaay tey quoi. waaw voilà waaw dañ koy rafetlu ah, di wax ne sax waroon na gën a mën a euh, fees lii parce que nañ ko xaar ci yeneen commune aussi tamit ñoom dinañ am lu mel nii parce que ci Ndingler la jóge ba ñëw dal tey ci Tóobén donc je pense que tey jii nii euh, population euh, sénégalais bi yëpp laa wax ne fii la leen waroon fekk tey ci ñu ñëw jàppale lii pour fexe ko stoppé fexe ko arrêté et lu mel nii jeex Sénégal quoi parce que tamit gis nañ ne boo xoolee jamono yi Sénégal loolu commencé na bari mooy coowal suuf donc pour ñu arrêté ko ci yu mel nii parce que ñoo xam ne jàpp nañ leen tooñ nañ leen tëj nañ leen alors tey boo xoolee fii nii yëpp euh, ñu bëri ñu ngi jóge ci ay gox yoo xam ne gox yu fas fasantikoo la mooy wane ne Sénégal sénégalais yëg nañ ko alors que pour mu fin di wax président Macky Sall que lu mel nii ñun bëggatuñu mu mu muy am ci suñu société quoi parce que lépp lu mën a xew aussi moom lañuy jox moom la ñuy jox toor bi moom la ñuy jox euh, euh, kii bi parce que ci nguuram la ñu gën a sentir que suuf mu ngi fi am Euh, jamonoy Ablaye Wade xawoon na tane bon xawoon na wàññeeku mais ak yi Macky saal dañ nekk di tong-tong Sénégal alors que sénégalais yu bëri aussi tamit gëmm ci seen bët di seetaan te yaakaar naa ne moment bi la ñu war a jóg boole suñuy doole euh, ànd xeex lii mu jógee fi quoi parce que injustice la te injustice ku nekk war na ko xeex quoi. responsabilité sociétale de nañ waaw ŋàññi nañ leen xam nga euh, booba cest mooy nelaw bi mooy nelaw bi parce que jaay doole la ñun jaay doole la ñu gis. jaay doole parce que seen nekkin dèjà ñun gisuñu suñu bopp boo xoolee Sénégal muy du société boobu rek isa kese mais société yi nekk Sénégal yëpp boo xoolee sénégalais yi gisuñu seen bopp alors que même bu ñu jotee ni nit ñi sax da ngay gis ne état dafay fare ak ñoom te coow li tey warul woon yegg fii que état bu Sénégal na fexe protéger ay doomam protéger suufam parce que ñii ñoom ñoo moom seen suuf donc alors que li ñuy mën a wax daal ba mu mën ko wax moom mooy euh, rafetluwuñu li nga xamante ni moom moo xew euh, jamono yi nii Sénégal rafetluwuñu li nga xamante ni waa ICS tamit teg nañ ko ci ndodd ñi nga xamante ni parce que lii coono kese la ci tooñ ci ci ci ci lu dul dëgg ñu téye leen fii nii nañ libéré doomu jàmbur yi ñu delluwaat et que ñu xool li nga xamante ni ñoom waxtaan nañ ko ak ñoom ñoom bañ ñu waxtaan ñoom li ñu bëgg mooy ñu yokkal leen. mais kon problème bi war na mën war na mën fin lu ci indi ñu lu ci jar ñu jàpp leen torturer leen surtout suñu frère bi nga xamante ni Ardo Gningue moom moo ci gën a sax garaawle jàpp nañ ko dóor ko ba pour mu toog sax problème la alors ñu koy ñaawlu di wax ne sénégalais activistes yëpp nañ jóg parce que lii nii menace la ci ñun ñi nga xamante ni dañ jóg pour xeexal suñu réew mooy bés boo ci nekkee ci lu mel nii rek euh, comme buñ ko réussir ci Ardo dinañ ko réussir ci keneen dinañ ko réussir ci Karim dinañ ko réussir ci Guy dinañ ko réussir ci kenen ak keneen ak keneen alors que nañ jóg ñu jéem ko stoppé ñu xeex ko mu jóge fi waaw parce que euh, rafetul quoi mën nga jàpp nit ki ci ci ci daf la tooñ nga yóbbu ko denc ko mais pas nga nga koy dóor amuñu droit di dóor kenn donc gendarme yi amuñu droit di dóor kenn surtout suñu frère Ardo ñu ngi ñu ngi koy masawu bu baax di masawu famem di masawu waa Toobé ñi nga xam ne ñëw nañ fi ak ñi nga xamante ni jóge nañ fu sori parce que fii nii boo xoolee ñu fi jóge ñi fi toog ñëpp ci ay gox yi fasantikoo la jóge ñëpp xeex bi parce que dañu gis ne lu noble la dëgg la donc te ñun injustice la ñuy bañ Sénégal. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Thierno Mohamed Sallan ah, nekk membre nitu dëgg valeur dëkk fii si Thiès quoi. avant tout ñun dañuy ñaawlu affaire bi am quoi man sax man affaire bi ñu nekk

donc maa ngi woo Sénégal yëpp la ñu gën a jàppante parce que mun na bu jeexee fii nii mun na xew si feneen donc fépp mu am na ñëpp joon suñu doole rek te am na Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk te ñun moom incha allah rabbi ay activiste lañ fépp la Sénégal ñun nga laal fépp Sénégal xewlee fépp fu ñu sonné doomu Sénégal ñun nañ fa teew incha allah rabbi la comme ñun dëggaluñu wax toujours tey la waalo gën aay ni dëgg lépp incha allah rabbi lépp la xam te ne injustice la fii lépp nañ ko xeetu ne fi jóge incha waaw mais li may war ni suñu njuur suñu suñu ay njuuma lañ rek dañu rek dëngate rek li ngay suñu ay dëngate parce que di jël ay intérêt di ko teg ci intérêt sa doomu sa doomu réew Macky Sall te ni moom nit dañoo dee ngir mu falu am na xam dañoo jox seen bakkan ngir Macky Sall falu jox suñu asamaan suuf ak lépp Macky Sall lépp la ko Sénégal jox desalatuñ ko dara donc du leen ñu waroon a fayee quoi du leen doxaat ñoom man dama am déception ci Macky loolu la loolu lañ ñaan yàlla bu waaw nit ku judd ku mel ni Sénégal yàlla mu jur Sénégal ku mel ni Macky Sall yàlla mu jur Sénégal. waaw Cheikh Tidiane Gueye dëkk village bi ñuy wax Mbaye Bakar près de Tobène 3 kilomètres à peu près bokk ci association bu ñuy wax FPD force pour le développement de la commune de Méouane qui regroupe les 89 villages de la commune. alors taxawaay bi waaw tey lii taxawaay bi mooy dañoo ñëw euh, comme ni ma ko waxe sànq parce que suñu association. dafay défendre intérêt population yi te y compris euh, village bi nga xam ne moo am coow li muy toobeen ak euh, Màkka ak Kër yi ñu am problème ñun dañoo jóg sans ñoom ñu ñuy solliciter ñëw ànd ci ak ñoom ca du début jusqu'à la fin toujours ñu ak ñoom pour jàppale leen ci xeex bi ñuy xeex. Euh, moo tax ñu ñëw fii fekkee procès bi mu nekk ci nag mu am particulier tuuti ndaxte suñu coordonnateur. Euh, muy euh, Cheikh Fall censeur au lycée de Diaobé moom la ñu fekk euh, fa muy liggéeyee ca Diaobé gendarmerie bu Mboro joxe ordre gendarmerie bu Diaobé ñu jàpp ko devant ses collègues indi ko transféré ko à Mboro ba indi ko defeere ko fii kon moo tax itam ñun duñ ci des ginaaw bokk ñu ñëwit pour jàppale leen. kon xeex bi waaw xeex bi loolu rek lañ ci bëgg ndax euh, liñ ca waxoon te moom la coordonnateur bi wax mooy ni euh, euh, nañ leen libérer pour le moment loolu la ñu wax mais du tere bu ñu leen libérer dañuy continuer rek fañ tegoon suñu tànk fa lañ ko teg waaw tant que population yi daal ñu nga xam ne ñoom moom seen suuf ñu ngi bëgg nangu di bañ ñu jël ko te joxuñu leen indemnisation bi nga xam ni moom lañ yellool ñun tam dañuy taxaw ci seen ginnaaw rek di leen jàppale. waaw lii tax nag ñu jàpp coordonnateur bi mooy déclaration yi mu def à la presse ba tey ñun ci loolu lañ nekk ah, duñ ko nangu duñ ko nangu waaw. kon daal ko fas dina sax di lan ngeen di sax exactement indemnisation wala ñu delloo leen seen xam nga xam nga waaw foofu jar na leeral parce que sénégalais yu bëri xañ na bu ñuy dégg dañuy foog ni population de Tobène Màkka ak Kër Mëgëy dañuy bañ a joxe suuf yi loolu dépassé nañ ko nangu nañ joxe suuf yi parce que d'ailleurs pour bu rappeler leen. Mbaar ak euh, Mbaar Diop ak Mbaar Ndiaye ñu ngi leen jëlee ci même site boobu yóbbu leen ci près de Pire ci ñoom seen indemnisation dañ leen indemniser à 9 millions l'hectare léegi sans dénombrer les arbres mais nag dañu ñëw ba Tobène Màkk Kër Mëgëy ñu ni ñu autorité administrative yi gëmloo ñu ni am na fi barème bu fi nekk boo xam ni 1 million 50 mille lay fay ensuite ñu dénombrer les arbres mu ni garab yi nag dafa am garab yi nga xam ne yéen a ko fi jëmbat muy mango darkase à peu près cinquante mille le pied bu dee darkase quarante mille ainsi de suite yeneen yi nag moom jusqu'à muy varié de vingt mille jusqu'à trois mille ñun nag ñu lool loolu lañ loolu bëgguñu ko dañu bëgg ni jamono dafa soppeeku la amoon 2009 amatul léegi la saakub ceeb doon jar 2000 jaratu ko léegi jitte ya soo ñu amoon amatuñ ko léegi kon nañ ñu indemniser li ñu leen laaj mooy 20 millions à l'hectare de dénombrer les arbres. ñaata lañ jàpp ci yéen. waaw li ñu jàppoon ci ci ñun liñ ci mënoon a jàpp bu dee toobeen rek euh, mat na woon 24 ñu libéré woon 6 normalement mu war a def 18. waaw léegi bu ñu ci yokkee nag Ardo ñing mi nga xam ni activiste la bu nekk ti Tivaouane ñu dolli ko ci mais jàpp nañ ni ci ñu dégg nekkul fi mu ne nii ci ba moom dañ ko isolé bokkul ci ñi ñu kii boole koog nag li nekk Kër Magay nag moom euh, xam naa chef de village moo dolli ko ci li jóge Kër Magay ak Màkka ñu ngi ci bokk. waaw o nombre de ñaata lañ jàpp ci kase bi fi mu ne nii moom 18 moom la ñuy moom la ñuy àtt nii ñi nga xam ni moom toobeen rek lañ dëkk. boo ci booleeg le coordonnateur euh, di de la FPD muy Cheikh Fall. Ndogane ban commune la bokk. commune de Mewane léegi Maka moom ak Kër Magueye commune de Taïba Ndiaye la ñu la ñu la bokk. waaw te ñoom sax booy xool ñoo ñoom ñooy ñooy paye le plus lourd tribut parce que li ci ëpp ci hectare ci seen ci seen ci seen suuf la bokk. ñu bëri ngaañ nañu taxawaayu ICS ci hmm. diwaan boobee. waaw ICS moom man de bu ma ciy wax sax damay tàyyi ICS bu ma ciy wax dama ciy tàyyi ndax ICS li ñuy wax li gën a élémentaire mu nga xam ni mooy responsabilité sociétale d'entreprise ah man de bokk li may xam ma nekk citoyen nekk meewaan wax dëgg yàlla xawuma man xawuma gisuma fa lu fa def du courant du tali du école du poste de santé du dara ndox daal la fa may lu mat trois villages bu ma jumul wala cinq villages yoo xam ni ñu ngi bokk ci commune u meewaan ñun ñu ci xam muy Mbay Baakar Toobeen Ngaaxam ak euh, ak Ndaari ak njuufeen te sax ñu mën ñuy menacé ni dañ koy jëlaat ndox boobu.